Euh, benn instant lan lan moo la gën a métti ci làmb làmb ji li ma ci gën a métti mooy ndeysaan considération bi nit ñi am envers mbër yi da ngay dégg ñu naan ndeysaan mbër yi bu réew mi di yëngu seen yoon nekku ci seen intérêt personnel c'est pas vrai dañ waxante dëgg ñun ñii ñëpp tey jii ku si nekk am na loo xam ne da nga koo gëm hors de làmb yaa ngi dégg fu ma expliqué tey jii ñun ay patriotes lañ injustice nanguwuñu ko est-ce que comprendre nga dañuy taxaw xeex loolu noonu mais nañ bàyyi population bi di am image bu ñaaw ci mbër mbër intérêt am rek bu askan bi di woote yoonam nekku ci duñ dem di non non non non non loolu existé wul quoi loolu amul loolu moo ma gën a metti ci axlu làmb considération bi nit ñi am ci bu négatif ci mbër ak mbër day wor moo yooyu vraiment daf may déranger quoi. moo la gën a neex ci bon li ma gën a neex ci làmb li ma gën a neex ci làmb mën na doonte làmb sax dafa bëri ay. xëccal bàyyil affaire yooyu mais li ma gën a neex ci làmb bon mën naa ne mooy sunu sunu man pour man ay social yi ñuy def quoi par exemple benn mbër boo xamante ni peut-être bëri na ba nekk ci ay tolof tolof xam nga ñu dox dem seeti ko yëkkati li ñu am jox ko benn ancien gloire boo xam ne feebar na soxla ndimbal ñu yëkkati ko jox ko man daal geste yooyu noonu vraiment neex na ma ci axlu làmb quoi. question bi yow bokkoo ci làmb ji wërngal këpp kan moo fi dàq bëri. lamb ji maa fi daax bëre olof laay wax ak dama la ne question bi yow bokkoo ci maag yow ñu ngi loose lamb ji kan moo fi daax a bëre lamb ji ko fi daax a bëre yow koo may laaj ci VIP wala mbër mbër yi làmb ji wërngal këpp waaye olof laay wax ak yow de lamb ji kaw ba suuf làmb ji kan moo fi daax bëre lamb ji ku fi daax bëre non doomu jaamu gën moo fi dàq bëre le tarkinda ah. kooko dàq ci dàq bëre ci lambi loolu dafa leer voilà qui est clair euh, question suivante bi da limal juróomi mbër yi dàq bëre ci lambi ji ta waaw si ta champion là bon Balla gay champion la eh, bul ma champion sama question dafa leer juróomi mbër yi dàq bëre ci la ta champion la balagay Gaye mën na bëre. Bombardier champion la. ak eh, kan Sa champion la tamit. ñi ñoo dàq bëri ci lamb ji. Eh, fit entraînement galaj ban mo ci ëpp solo ci. non mbër nak mom da ngay paré quoi da ngay wolu sa carton ba paré ak fit surtout fit parce que da ngay gis mbër mu paré ñew ba ci gi yow vraiment di pat pati ba ñàkk làmbam quoi. sama question leer na dé dama ne bëre fit entraînement galaj ban mo ci ëpp solo. pour man entraînement bu wóor quoi ak fit. déedéet bul nga benn laa la laaj kat yi ban moo ci ëpp solo jox ma benn. entraînement nga bàyyi waajee ngay xool kii moo lay dicté bu wóor. entraînement ah, moo ci ëpp solo. maa moo gën a woor waaw. kon ce que veut boo gisee mbër bu entraîné da koy naw. waaw ma gisee mbër bu entraîné dama koy naw parce que man su ma amee combat ak mbër maanaam ay photom laay njëkk a xool état de forme moom waaw. waaw ma gisee ni kii mi ngi liggéey lu mu doon def benn dama koy def fukk quoi. voilà qui est clair kon question bi leer na réponse bi leer na ba tey on avance. Euh, entraînement mooy ci solo disons yow nga war a bëre ji un jour sa jour combat ñu woo la ne la mbër dafa am règlement bu bees bu wàcc ñu ne la yow sa bëre sa fit sa entraînement ak sa gàllaaj ñeent yi ñu ne la ñett yi nga yóbbu làmbu ja nga bàyyi fi benn bi wala doo bëre ban ngay bàyyi. sama doole laa yóbbu ak sama fit. ban ngay bàyyi bëre bi fit bi entraînement bi gàllaaj gi ñett yi nga yóbbu bàyyi benn bi ban ngay bàyyi. bi laa yóbbu. ban ngay bàyyi bi ngay bàyyi bëre bi fit bi entraînement bi gàllaaj gi ñett yi ñooy dem benn bi mooy des wala doo bëre ban ngay non galaaj gi dama koy bàyyi. galaaj ngay waaw nga yóbbu bëre bi fit bi entraînement bi. nga bàyyi galaaj. waaw lu tax mënoo bàyyi bëre bi. non bi du ma ko bàyyi parce que bëre dafa gën a wóor. lu tax mënoo bàyyi entraînement bi. entraînement bi du ko bàyyi parce que dalay lay rassuré. lu tax mënoo bàyyi fit fit moom loo lépp loo amul fitam rek lépp looy pat pati di xel ñaar mënoo ci am réussite quoi. lépp loo song te amoo fit bàyyi ko. du dem voilà qui est kon jour ji euh, galaaj ngay bàyyi. Eh, yow sa wàllu bopp bi nga dalee seetaan làmb ba tey ban combat nga mës a dem stade seetaan ko wala nga toog jàkkaarloog télé bi seetaan ko mu marqué la ba mënoo ko fàtte. Euh, Balla Gaye Tyson ah, parce que waaw parce que boobu dama àndoon ak sama benn grand ndeysaan tukki na sax. Ah, waaw mu joxoon ma ay dàll yu bees tàq vraiment xam nga bi bi Tyson daanee Balla Gaye dama bi Balla Gaye daanee Tyson dama tëb. daal di teppeeku quoi ay souvenir la juste quoi motax tax mu mu des sam bopp bala gay de Tyson mo la gëna mat mati waaw waaw moo ma gën yow sa walu bopp bi nga dalé bëree mbapat ba arène ban victoire mo la gëna neex sa carrière bon victoire bi ma gëna neex sama carrière moy sama premier combat waaw Forza parce que dama ñëw mu jàppee ma ben nga ko quoi waaw mais bobu jom moma ci génn ak fulla combat bu metti ñu génn ñu bëre combat bu metti vraiment am premier combat dafa metti mais lamb jom la rek ak fit ak fulla rek waaw ndam mom ci loxo yalla la nekk quoi bi nga dalé béré mbapat ba arène ban défaite mo la gëna metti sa carrière bon défaite bi mo gëna metti mën na né du défaite sax parce que comme ci biir géew lañ joxé sama mën na comme que ci biir géew lañ joxé sama adversaire victoire lool du défaite mën na né quoi mais li metti moy duma duggal record ñu jox ma victoire mais amna na ñoo xamante peut-être ci kaw ci biir euh, tribune bi mo leen mo leen mo leen gënon neex quoi waaw mo leen gënon neex Euh, neekaa quoi defet la du defet ndax jox nañ ma sam victoire d'accord question suivante bi damay génn ci làmb ji tuuti dugg sa vie privée da ngay seetaan football football waaw damay seetaan football ban équipe ngay supporter bon man Liverpool bëgg naa ko mais man moom souvent ambiance bi top topp ah. fu ñuy far rek ma far feneen quoi man non non yooleel sa bopp ban équipe ngay supporter da ngay suivre football ban équipe ngay supporter Liverpool amna ci mom cofeel parce que sa Sadio Mané fa nek wa amna ci mom cofeel Liverpool ngay supporter. waaw Liverpool mooy sama équipe quoi. li mën mooy cinq joueurs Liverpool. cinq joueurs Liverpool Sadio moom kenn du ko fàtte. waxuma ak yow bul am na kële nu mu tuddee non non. dëkk Égypte ndaama la Salah. Mohamed Salah. moo wax Salah sama waa yow gën mën nga noo wala mënoo ko cinq joueurs laa la laaj. Salah bi kee moo kee moo la ko jox boo motul dama koy éliminer ñëwal léegi am naa Sadio maane ak Salah am na ma Vandal xaw ma Virgil waaw njool mi ah waaw ak kan dimbali leen ma waaye man piégé wu ma la fekkoon dama ñëw rek ne li mën ma 5 jours wala ma ñëw rek la Arsenal li mën ma 5 jours nga ne dama la piégé mais dama la laaj ban équipe ngay supporté nga ne ma Liverpool indi nga trois na ñaata Aliou Cissé ban Aliou am di fay fu mu nekk am di fay man waaye mi may delloo deux mille deux de deux mille deux mille deux la may delloo am di fay man boo ñëwal deux moo ci des. bon am naa ñaata. Van am Virgil Van nga ma jox. Mohamed Salah Sadio Mané. waaye Liverpool waaye oh. Marcelo nekkul Liverpool. Marcelo nekkul Liverpool. te yàlla yow équipe bi ngay supporté mënoo ma limal 5 jours. non mais man pour te dire ah Sadio Mané tax ma bëgg Liverpool ah. waaw a waaw bu la neexee kan mooy sa joueur àdduna wërngal këpp. àdduna wërngal këpp kan mooy sama joueur man nag man ancien laa de man benn joueur Real bu yàgg bu ñu doon wax mag man a man Steve McManaman international anglais joué na joué coupe d'Europe 1996 avec Angleterre ñu dem ba demi-finale dajeek euh, Allemagne Allemagne éliminé absolument c'est kooku que je quoi parce que tout le monde ma neexoon quoi waaw waaw turam dafa ma neexoon jëloon na aussi euh, ban Ligue des champions je jëloon ak Real 2000 2002 Je koy seetaan presque un booy laa quoi yàgg na quoi waaw mais instant bi joueur yi nekk en activité kan mooy sa bon joueurs yi en activité mën naa ni mën naa ne mën naa ne mën naa ne non bàyyi ma jël Sadio Mané rek. international mooy sa joueur ñu dellu si waat Sénégal ah euh, kan mooy sa waykat kuy way nga kontaan. ah yow tamit. le Faramareen. le Faramareen ah gone Waliye. non du ma gone Waliye mais damay déglu Wali. Wali mooy sa waykat. mooy sa waykat waaw waaw. kan mooy sa comédien préféré. koo xam ne mënoo ko muñ koo xam ne boo ko kii rek. actionné rek nga wàcc. comédien comédien mais nag comédien. jox ma kenn bu bëri nañ fi bon man nag man xam na ma a neex nag pour comédien dajji ma mooy problème quoi moo tax may xalaat. comédien comédien comédien. bon bon. waaw bàyyi ba jël jànko rek. falamaa leen. waaw borom 100 francs. Euh, lagaluñu loolu. dal la demee rek waaw. question de coob yoolal sa bopp lan mooy sa plat préféré. non man maafe moom dama ko bëgg trop. maafe moom souvent kër gi dañuy togg ceeb sax ma génn restaurant jënd maafe. maafe. C'est sa coow préféré. waaw ca maafe bala en exclusivité fans yi supporters yi képp ku invité sapeur préparé préparer comment. non ku may ku may jàpp ci gàllaaj mom bu yaboo nga togal ma merci beaucoup merci euh, on revient en hein. Euh, ci question réponse série sénégalaise yi yi fi jot a ak yi fi nek actuellement ban moy sa série préférée. bon man série sénégalaise, yi ko sétane vraiment vraiment parce que série mom la yalla xam doyna na quoi parce que mbon rek lañu promouvoir quoi vraiment. waaw ah, bon non dama ci suivre benn man moom bu ma bu ma duggee YouTube moom ma seetaan xalaat TV sax waaw xalaat TV wala ma xool ay ay ay ay non làmb sax yenn saa yi mën naa ko xool quoi bu dee du événement yu mag moo am quoi waaw mais à part mën naa dugg xool ay waaraateeg yooyu daal coow jubul question bi leer na réponse bi leer na yaa ngi jàmm gën si Kambaaw ah? question bi jàmm gën si Kambaaw bokk ci fan moo la gën a neex ci Sénégal fan moo ma gën a neex ci Sénégal non suñu dëkk moom gëna neex Kër Mbay Sall Kër Mbay Sall waaw côté ban région la côté Xombal la waaw Mo la gëna neex ci Sénégal Mo gëna neex ci Sénégal waaw question bi leer na réponse bi leer na question suivante bi Sénégal bokku ci ah ban réew mo la gëna neex ci aduna bi pays bo xamné da ngay rêver un jour teg fa sa tànk non Angleterre dëkk bu neex la ah parce que dégg naa seen dërëm mooy suñu 1000 francs mooy dëkk ñoom Steve Mac man waaw dégg naa seen dërëm mooy suñu 1000 francs